nekkal Serigne Touba ak Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ba taxawaay bu ma sëkk bi nga xam ne am na ko ci lislaam am ko ci yoon wala suñu borom la ko kattan ak wér lépp mu àggale ko li mu ko bëggee ndax xelum jullit yëpp a dal ci moom xelum taal yëpp a dal ci moom kon ñu ngi nuyu bokk jullit yëpp di nuyu bokk taal bi yëpp di nuyu Cheikh Mouhamadou Bachir Mbacké ak imaam mi nga xam ne. ñëpp xam nañ ni mu demee ndax surtout Serigne Touba la ak Serigne Ndaw taxawaay bi tam li ko fi sëriñ bi séentoon ba indi ko fi ñëpp xam nañ ne matal na ko kon na ko yàlla yàgg taxawee ñëpp yàgg ci ginnaawam. di nga xam ne moo yore kàddu bi di fi jëw ñoom ca Ndakaaru ak mboolem bi lépp mooy tam ñu koy sant di ko gërëm ci taxawaayam ndax. fàttali rek lay doon ndax liggéey bii bu demee ba agsi fii ñëpp xam nañ ci taxawaay bi xam ci yitteem xam ci positifam ba yàlla def suñu doom def li ci ëppoon ak kon moom itam ñu koy sant di gërëm ci ginnaaw wax ji nag du ndax dañuy sant bokk julli yi rek ak bokk taalibe yi fii àdduna toll nii ñëpp maase xam wopp ji nga xam suñu ko wàcc na ko ci kaw suuf muy balaa di mbas moo xam ne yàlla ko yàlla teggi ndax ñëpp xam nañ ne li muy gàllankoor kon itam bu yàlla defee ñu dem ba mu demee wax nii ak wooy fanam ci ñëpp gën a góorgóorlu ci sàmmonte li nga xam ne moo leen di aar di aar ñëpp ndax jàngoor ku ne ci war ngaa fexe ba bu ko wàll sama morom ku néew ci itam war ngaa fexe ba di ko watandiku loolu suñu borom ko santaane kon nag ñu ngi nuyu ñëpp di rafetlu nag mboolem bokk jullit yi ak bokk taalibe yi ndax jàkka ji wa anna al masajid lillahi falaa tad'u ma'a llahi ahadan jullit yëpp nag maase gi maase gi maase ci xam ne jàkka ji néegu yàlla lépp lu ñu askanale Serigne Touba jullit yëpp ko bokk ndax Serigne bi loolu lu ndund loolu lu waxee fir lii nag firnde li ci ne wuy ko ko ñëpp wuy ci loolu xam ne ji xam ne néegu bi ànd ba tax mënoo fee xàmmee murit ak tijaan ak xaadim ak laayeen ak yeneen tarixe ci si yëpp ci Sénégal ak ñi nga xam ne sax ay jullit lañ te askan wi ci tarixe loolu lépp mooy li nga xam ne suñ borom santaane na fa ne te rasulullah indi ko al mu'minu axuuhu axuuhul muslim innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum lem santaane ci jullit yëpp maas ci àndoon nekk benn lii bokk na ci li koy kon nag ñu jeexale foofu kàddu yi jox sëriñ ba kuy fay yóbbante bi nga xam ne war na ko jottali ci bokk taalibe bi jëme ko ci bokk jullit yi leeral ko ni mu ko war a waxee ginnaaw boo xam ne am na ci digg lu bàyyi ko ci ki fi nekk sëriñ Touba di ak Cheikh Mouhamadou di ñaan mu yàgg fi te ànd ak wér mu jottali bokk taalibe bi ak bokk jullit ñëpp diggaloo ko والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته